عقدة من لسان يقرأ قولي يا حمة شيخي انظر لنا بهذا المحضر وتعطفي بنظرة تعطي لنا بذفر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi sant yàlla bu baax ci jotaay bu barkeel bi jotaayu tudd yàlla bi ci bërëb bu barkeel bi waaye ci mbooloo bu sell bu barkeel bi di julli di sëlmal ci seydil awalina wal axirin ci seydina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di ndokkeel saaxibul xatmi wal gëttmi mawlaaya abul abbas cheikh ahmad atijani radiallahu taala anhu waaye di kañ di bàkk di bégee di damoo di buukarewu saa su ne مولانا ووسيلتنا إلى ربنا باي برحمة عبد الله ñu ngi leen di nuyu nuyu islam di ñaan jàmm yërmande ak barke yal na yàlla sax di ko dog ci ci képp koo xam ni teewee na jotaay bi mu tàddal ko ba mu ci képp ku naan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Abdou Malick ibnu Mawlana Cheikh al Islam Haj Ibrahima Niass di ko wàccee wàccuwaayam di nuyu xalif bi ci moom ak mbooleem njaboot ak Mawlana Cheikh Ibrahim ñu ngi nuyu muqaddam ñi nga xam ni fekk nañ leen fii ci mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Konté ku ci mel ni Zakiru Xadara bi muy Cheikh Ibrahima Ndaw ak euh, nga xam ni ñooy yore kër gi fii jëppal di ko animé ak di ko organise bokk ci ki nga xam ni mooy Seydi Mokhtar ak ñi mu àndal di ndokkeel ndaw yi nga xam ni ñoo nekk fii ci kër gi ci seen yëngatu moo xam weeru koor moo xam gàmmu moo xam xadara yi moo xam bu mu mën ci doon seen alal seen temps ak seen doole du ko fekkee wuutu nañ fi képp ko xam ni taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim la ñu ngi leen di dokkeel bu baax ci yëngatu boobu di ñaan yàlla yàlla yàlla gën a dëgëral seen groupe bi gën ko dooleel di ci jiital ki nga xam ni mooy Seydi Hadj Malick di ku baax ku yaatu ku tabe ci daraja ak maqaama di ñaan yàlla président bi Baye Cissé yàlla dimbale ko di kontaan bu baax ci tànn bi nga xam ni moom la ñu tànn kenn ci ñun kenn ci njaboot bi di Cheikh Amadou Yoro Ndaw di ndaw boo xam ni macha allah ñu ci yoon tegu na ci siraatal mustaqim képp ku ko xool muy dox wala muy jëflanteeg nit ñi wala muy yëngatu ci yëngatoom ak dalam rek sa xel day daal di dem ci ndaw yooyu nga xam ni moom la bàyyi junjoon ne ndaw yooyu nga xam ni dañuy sàkku xam-xam am ittee. am jikko ko tuddee pour jotaay bii bërëb bu ko miin la te miin na bërëb bi it duur loo xam ne dañoo jël rek jox ko ko miin na bërëb bi lool te li nga xam ni mooy weeru koor eh, leeratul la ñuy tànn waxtaan yu bëri dañuy dem Medina loolu màndarga yu kawe la jotaayu wasifa bi miin na ko lool koo xam ni yaa ngi ñëw fii ci xadara bi xam nga ko wala nga miin ko kon suñ ko ko tuddee rek dañ koy delloo ñu waaye dañ koy encouragé kon buñ ko ko tuddee tuddee nañ ñu ko ñun tuddee nañ ko mbooleem membre Nuurul Basar fu ñu mën ci nekk kon ñu ngi kontaan ci tur boobu tur boobu yàlla na ko jural yëkkati ko dama ne ñëw ci kër gi ñu tudd sa tur rek doy na teraanga doy na barke ndax jëmm ji nga xam ni moo fi nekkoon toll ni nga xam ni yàlla rek nga xam ni mu su ma sëriñ di ko owee coobare yàlla nga yàlla kon ndegam politiciens yi ñooy sàkku ñuy leen di tuddee ay événement pour seen tur yëkkati ko nit ñi gën leen a xam seen mbir mën a dox rawatina ndaw boo xam ni dafa bëgg a yëg ñu tuddee la jotaayu tudd yàlla ci kër Maulana Cheikh Ibrahim ci mbooloo mu barkeel nii dama ne du la ba mu yëkkati ko kon man Cheikh damay jàpp ni pour bii ñu la tuddee jotaay bi ñu la tuddee dañ la encouragé ne la yaa ngi ci yoon góorgóorlu tu n'as plus droit à l'erreur yal na yàlla dimbale ñu ngi kontaan bu baax di ñaan yàlla ci mbaaxam ci yërmandeem ci màggaayam yàlla nañu def dëgg dëgg taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim jar na ñaan saa su ne sàkku dara nañu yootu doon dëggi dëggi taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim bu ñu ko yàlla defee lépp lu ñu bëgg moo ñuy fekk waaye du ñu dawati ci ginnaaw lenn ñu ngi kontaan di gërëm di yemale fii kàddu bi wa maa zaalika alallaahi bi aziiz walhamdulillaahi rabbil aalamiin jërëjëf si kon kàddu gi dañ koy jox